on s'est constitué en collectif des délégués du personnel et des délégués syndicaux Les délégués du personnel nous savons ni par exemple am un quantum horaire de 20 heures boo xamante ni moom la ko yoon may bu ko neexee mu heure par jour bu ko neexee mu jël ko trois heures par jour bu ko neexee mu jël ko vingt heures yëpp mu jël ko ci une journée bu ko neexee yoon moo ko may et suñuy réunion aussi avons un lieu boo est un siège du délégué du personnel on n'a pas besoin aussi de demander une autorisation parce que tout tamit eh, di wax yàq la ñuy xamal aussi kenn ki nga xamante ni moom mooy eh, ndeyu administrateur général bi nga xamante ni moom la ñuy wax Kibili Touré di ko xamal carrément que ni ñun duñ ko jël pour rien au monde mu nekk suñu noon nekkul suñu noon te du nekk suñu noon ba ilaa yow mi diini dañ koy wax rek carrément ne ko eh, li nga xamante ni moom moo nekk ci biir ay diggante syndicat ak syndicat bu ci simisé wu ni boole ñëpp ni moom mooy ndeyu ñëpp mooy bàyyi ñëpp ci entreprise bi seet na nga xamante ni noonu la liggéeyam war a doxee ak ñi mu war a àndal mu ànd ak ñoom doxal li nga xamante ni mooy liggéey bi ci biir chemin de mais suy def ay parti pris di dem di jëli benn benn benn parti di ko def se penn perdu encore une fois, c'est peine perdue. Le collectif des délégués du personnel et euh, des syndicaux se sont réunis. Nangouat, les Sen les secrétaires généraux, Nangouko, teel ko Sen Bop, nekk interlocuteur travailleurs yi et nous allons faire une lettre adressée à à à l'administrateur def copie inspecteur du travail def copie les centrales syndicales parce que tamit amna na loo ni tamit su ko moom c'est parce que c'est la première fois que je gère une entreprise bu mu on a ñu koy dugal ci ay Kambo, kamb yi mu koy dugal moy ñiko wër en toute sincérité war nañu ñi nga xamante ni ñoko fi jitu, te and ak mom tay di ko waraat. su ko nangoo moom moo ko xam mais dal liñ koy wax mom na na dans les délais les plus brefs ce collectif des délégués du personnel et des des des, des délégués syndicaux ñu tok autour d'une table mu dérouler sa feuille de route wax ñu ko suñ ko ci mënee gungé ñu gungé ko ci suñ ko ci mënulé gungé ñu wax ko ni carrément li amna ay lënc lëc am ay lënc mënu ñoo def mouvement barki demb le secteur d'État au réseau ferroviaire en l'occurrence Mayacine nous am ngor aussi nous sommes des intellectuels nous ne sommes pas des vernacles quand même nous dem des nous nous mu wax ñu wax ju leer ñu wax ko wax ju leer des ko li ñew ne kat ah njaboot gi sama njabot la bu amé fissure ci boor bee naa parti nawo parti ñu tok ñu waxtaan mais il l'a pas fait. il continue toujours di def ay lo xamanteni ni day wane ni man fi la far te lolu ñun duñ ko nangu tay duñ ko nangu suba les syndicats ne représentent plus les travailleurs et on les a on les a bannis à partir d'aujourd'hui même le président de la République Macky Sall il rencontre à travers l'Assemblée nationale il rencontre à la population sénégalaise donc c'est normal lolu daf ko wara def ni mais bi mu ni ñun gagner perdre entreprise là on serait obligé donc on serait obligé de lui demander des questions que Kibili se mette devant nous pour nous donner des explications claires par rapport à ce nga nous parce que tay manque à gagner 5 millions par jour 10 millions par jour 20 millions par jour 20 millions par jour quand tu calcules par à la fin du mois ça fait 600 millions 600 millions ça fait qu'une entreprise bi gagner ma wax Kibili encore une fois on n'aurait pas besoin de demander à l'État du Sénégal de nous payer nos salaires qui ne fait même pas 160 millions et l'État nous verse 200 millions par mois 160 millions si on ko dindee ci masse salariale bi mu 40 millions plus les ICS li ñuy fay ay 75 millions GCO di ñu fay plus le domaine ñu ñu koy fay a le plein droit la ñun le plein droit de demander à Kibili de nous rendre compte par rapport à ces deniers qu'il détient loolu la daf ñu koy ci nii mbaa ñu ko sinon nag su que nous ñun continuer moom muy dem di am ñenn ñu mu faral wala ñenn ñu mu nangal sangam on est majoritaire on demanderait tout simplement son départ.